daal di dooree ndak tay nak nek li nga xamantene moy altiné altine yemmoo ak ñaar fukki fan ak benn ci wéru octobre atum 2024 li yéen kay kayi xëy yeewoo ñu daal di ko ko ak journal bu mag bi comme ni may faral Diko waxé euh, tous les jours le public la ñu koy di le public nak tay dafa xey daal di samp aw laaj ci xëtam gu ñëk laaj bi nak mu ko jëmele ci ñi nga xamantene ñom ñoo fi nek fi mu ne ci kaw nguur gi mu le pouvoir en panique compte-t-il profiter du sinistre dans le nord du pays pour reporter les législatives loole la journal bi daldi xëy nag samp ko ni ki laaj nag daldi di cay ñef point d'interrogation Mune le conseil interministériel de ce dimanche prépare-t-il le report gis nañu ñi nga xamante ñom ñoo nek ci nguur gi ñu doon amal ab mhm, conseil interministériel Mune ne cagnotte bi nga xam Copper Express naka mu ngi peine à collecter les 100 millions depuis le 16 octobre scandale bi nga xamante moy ka ak catastrophe yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci kaw régime bi lé waye nak peur bi nga xam manam ragal gi nga pouvoir bi fi mu nek ni dañu ko daldi ragal yooyu yépp ay point la yu ñu mëna sukkandiku ngir nak daldi toxal li nga mom mooy élection yi ñu dëgmal waaye tamit wax na ci li nga xamante ne moom mooy Birahim Seck moom mi jiite forum civil moom la mu xamle mooy ne Sonko la daal di euh, joxoñ daal di koy xamal ne scandale bi nga xam ne consommé nañ ko de négoci renégocier moom warut a mën a taxaw benn yoon di ko di ko di ko di ko jéem a setal ak yi ni mel loolee la Birahim Touré daal di wax ki nga Birahim Seck di daal daal di wax ki nga xamante ne moom mooy suñu élimaanu jëwrin Ousmane Sonko tamit ONAS ak ASER scandale yooyu nga xam ne Akhenaton daal dinay wax nag ci li nga xamante ne nee na yile yile scandale nag dafa mérito à ce que ñu tirer ko au clair. acca ñu wëyal xool la ñuy xooli ji moom nag li mu wax mooy li nga xam ne meeting bu rëy boobu amoon fii ni ki samedi foofee ca Dakar Arena mu ne nag giga meeting Sonko en super héros la ko waxee mu ne les déclaration polémiques yi nga xam ne def na ko fa waaye tamit mbirum Azer ba nga xam ne jéem na koo setal ki nga xamante ne moom mooy DG bi waye tamit li nga xamantene moy société civile ak yini mel Sonko daal dinay ci wata bu baakha baax ci li nga xamantene moy mbir ya mu fi dundon mhm. bobé nga xamné ne eh, duggagul woon sax ci li nga xamantene moy nguur gi waye l'observateur wat na ci li nga xamantene moy mooy Bougane Gueye ak détail yi nga xamné moy ay détail yu mu tuddé explosif de son audition interrogé de 15h30 à 18h mune le leader de Gëm sa bop a déroulé devant les enquêteurs, votre communiqué est diffamatoire, est un, c'est un tissu de contre-vérité. Mais mm -hmm. communiqué, ben xamantene ñi nga xamantene mom moy mom moy euh, gendarmerie nationale def nañu ko waye mhm. nak mbir ya dañ ko sa diffamer mhm. ba nopi nak lañ ca wax lepp du lu am euh, gan li la xam li la xamal ñi nga xamantene moy enquêteurs yi mu jakar lolon le président a pris les airs nous sommes venus par la route lolé le bugaan dal di feussal ci bilé enquête waye tamit ñew na ci forum civil bi nga xamne dafa pointer usage moyen yi nga xamné mom la état ak suspecté nak nañ ko def ci campagne électorale bi nga xamné dafa dal di déguiser manam euh, li nga xamante mom lañu amal ni ki samedi genre campagne électorale la ko société civile la ko forum civil dal di tuddé waaye nak wax na ci li nga xamante mom moy repatriement mune les dessous du retour des sénégalais du Liban Manam mbir ya nak la nek ci souf mom lañu wara waxtané lolé le journal bi dal di feussal wax na ci arrestation de trois iraniens fi ci Dakar mhm. manœuvre troublante autour d'une cargaison de fer de 4 milliards euh, journal bi daldi ci ñëwaat ba mu yaatu lool ñu xoli benen acca ba tay dañuy daal di euh, wéy euh, xoolal révélation révélation yene kay mom nak dafa xey tay daldi di na talu journaliste bi di Cheikh yirim Seck mu ne nag attaque contre le président Macky Cheikh yirim dénonce les mesquineries du régime noné la ko daldi di en visite au sinistré à Bakel ki nga xamantene moy mooy Bougane Gueye Dany moom nag dañ ko daldi taré mu dal di jàppale ji ñoo ñi nga xam ne ñooy les populations yi dundo métit googee waaye tam wax na ci baisse du prix des denrées Muné une mesure non officielle et non effective effective L'olé le journal bi daal di xamal hmm. waaye wax na tam ci yaram ak kan soko ci soccer bi nga xamante sa Égypte lañ koy amalee mu ne yi nag dañoo daal am surprise devant la Mauritanie ndax dañ leen a duma ay duma yu metti ca euh, ñoom sax dañoo war rek ressaisir ndaxte euh, ñoom ñoo nekkoon euh, champion d'Afrique hmm. sortant ca ñu wéyal xool yi la dépêche la dépêche yéene kaay moom itam xëy Nak dal di wax ci Serigne Mboup mi nga andina ne moom itam andi na contribution ci ñi nga xam ne les sinistrés de Bakel ak yi ni mel ak la ko wër moom nag la ca def ne une enveloppe wala boog dafa joxe li nga mooy euh, euh, la daal di joxe lu toll ci valeur ba nag toll na ci quinze millions de francs CFA loolu la daal di dekese nak jox ko ñi nga xamante ne mooy ñi dund métit yooyu foofee ca Bakel Podor ak la wër waaye tam wax na ci mbirum li nga mooy soutien ñuy apporter la bugaan ginnaaw bi ñu ko loxo ca Bakel ni ki samedi gi ñu génn mu ne plus de soutien à Bougane la ko daal di duppee waaye tam wax na ci li nga xamante ne mooy collecte de fonds bi nga xam ne Pastef ñu ngi koy def ngir amal seenu campagne électorale mu ne la démonstration de Pastef à Dakar Arena loolee le journal bi xëy fësal ndax ñu xooli beneen journal ñu dem xooli l'enquête l'enquête yéen kaay xëy nag fësal enquête am ci li nga xamante ne mooy crue du fleuve Sénégal et inondation mu ne leur est grave nee na nag waxtu wi Bakel le président Diomaye a fait le point sur l'organisation des secours 774 ménages yoo xam affecté nañu ak 500 tonnes de vivres acheminés lolé lépp dafa daldi and ak ndox ma dem la visite mouvementée de Bougane et de ses amis de sam sakado l'appel de Thierno Madani à la solidarité nationale l'olé le journal bi xey feussal waaye l'enquête waxna ci li nga xamante mom moy législative ak mbirum Touba ak Bakel mhm. l'épopée d'une opposition qui se cherche l'olé le xey feussal waaye tam waxna ci li nga élection utilisation des moyens de l'État monnaie les constats du forum civil l'olé la xey wa wa wax waaye tam waxna ci ki nga xamante ne moy euh, Mimi Touré mom mi d'aldi di euh, wax ne nag dafay di amal à plainte j'ai ko ci journaliste bi di Cheikh Yirim Seck mi nga ne na ne daf ko rek diffamé ginaaw bi mu ne dafa bokkon ci ab réunion bu amone fofé ci présidence de la république ay ca ñu doxal ñu dem yi les échos yéenekaay les échos yéenekaay nee na nag Sonko ginaaw ba mu jàkkaarloo foofee ak ay militant am ca euh, Dakar Arena ca giga meeting bobu ñu doon amal waxna na fa nak mbirum bugaan mbirum procès digganteem mak aji sar waxna na fa li nga xamante moy mbirum législatif ak scandale yi nga xamné ne daal koy néméku ci li nga xamante mom moy régime mom nak néna je veux une majorité écrasante à l'Assemblée nationale mu on a récolté 500 millions en moins de trois jours je veux un milliard avant dimanche mu c'est zéro scandale à l'ONAS et à l'ASER lolé le journal bi xey feussal trafic d'or nak la dal di deux millions versés à un à une SCI mhm. à Paris mon législatif, secteur privé moom nak dafa dal di ñëwaat ci Abdoulaye Sylla ak bi mu doon amal niki demb, ak taskatu xibaar yi Abdoulaye Sylla nak melne kuy dal di wax ci ñi nga xamantene ne moy Sonko ak Jomay mi nga xamne ñoo nekk ci réew mi nak nonu itam Macky Sall mi nga xamne mom nak mo fi bayé ko mu ne bala nga jubanti wala ngay jub wala ngay redresser quoi que ce soit fay nak dal di fekk yow mu koy def nga dal di jub ba avant de redresser il faut être honnête mhm. on a voulu m'éliminer et récupérer mes marchés lolé la je veux mettre une expérience d'opérateur économique au service de la création d'emplois on a on a donné on va donner une à une on va donner à notre jeunesse non pas des mots <coughs> des paroles futiles mais les moyens de sa de sa dignité loolee la ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Sylla daal di mm. fësal waaye nag journal bi dellu si waat na ci arrestation Bougane Gueye dani ak la mu xamle sax mooy ne tey ji nag ci altine ji lañ koy daal di defeere foofee ca euh, mu jàkkaarloo ak procureur bu Tambacounda journal bi dellu si ba léegi ci li nga xamante ne moom mooy kulisu meeting bi le mu ne nag Sonko et la vieille dame maanaam euh, image boobu nga xam ne ñëpp gis nañ ko bi nga xamante ne moom mooy euh, parti bi di Pastef ak loolu nga xam ne moom la ñu doon amal foofee ca jam euh, ñaajo ñu dem euh, xool yi euh, Walf Quotidien. Walf Quotidien mu ne euh, Pastef à Dakar Arena Sonko tire surtout il se mue en juge dans les affaires ONAS et Azer. loolee le journal bi fësal waaye tam wax na ci restriction des libertés des opposants la loi du plus fort mu ne nag mbir yi moom ko ëpp sa morom doole rek xanaa da nga ko koy daal di woon. Mm-hmm. la gendarmerie accuse Bougane de refus d'obtempérer et rébellion maanaam nag la ko gendarmerie wax dafa daal di ne du ko def ba noppi nag di rebelle wu mel ni kuy sax xeex ak ñoom di xëccanteeg ñoom loolee la ñuy toppee ki nga xamante ne mooy leaderu gëm sa bopp euh, bile mu ne nag c'est ridicule selon son avocat maître El Hadj Diouf waaye nag il sera présenté tey jii ki nga xamante ne moom mooy procureur bu Tambacounda waaye nag journal bi wax na ci législatif anticipé mu ne l'alliance pour le Sénégal de Alioune Sarr vote Pastef dafa mel ni nag moom Alioune Sarr mhm. dafay daal di voter liste bi de Pastef waaye tam wax na ci euh, mbirum tàggat yaram fële ca Everton Iliman Ndiaye mu ne le nouveau Rooney des Toffees noné la ko duppee. acca ñu wëyal xool yi Sud Quotidien Sud Quotidien la di daldi euh, jubali xool yi pré campagne électorale des législatives anticipées la daldi di ñëw mu ne regain de tension mel nak euh, sa yo élection jubsee ci réew mi rek dañuy mhm. ko ay tension ya nga xamante dañ koy dund ci réew mi euh, politiciens yi di ak xéx ak jaayante doole gi lolé le journal bi xey tay dal di feussal ci li nga xamante moy xëtam gu njëkk waaye tam wax na ci secours aux victimes de la crue du fleuve Sénégal mu les fausses notes d'une visite présidentielle lolé le journal bi feussal tay ci xëtam gu njëkk. acca ñu dem euh, xool yi Vox Populi. Vox Populi ñëwaat na ci li nga xamante moy ambiance bi nga xamante moy campagne électorale bi ñu nemmeeku nemmeeku woon niki samedi ca Dakar Arena mu ne nag giga meeting et méga one man show la ko daal di tuddee mu ne Sonko nag giga meeting la doon def ak li nga xamante ne mooy méga one man show euh, loolu la Sonko doon def les révélations sur sa guerre jour contre le pouvoir waaye tamit procès suite boutique yi ni mel di na ci wax levée de fonds ya mu xamle ne toll na ci cinq cent millions waaye nag moom la mu bëgg mooy un milliard waaye nag wax na ci li nga xamante ne li nga xamante ne mooy les pics à Macky Sall Amadou Ba ak Bougane ku ci nekk rek jox na la sa wàll ci li nga xamante ne moom mooy euh, nag wi wax na itam Bougane après son arrestation musclée Bougane déféré aujourd'hui il est poursuivi des faits de rébellion et de refus d'obtempérer waaye tamit ki nga xamante ne moom mooy Alioune Tine moom mi jiite Africa Jom Center daal dinay wax ci li nga xamante ne moom mooy mbirum élection pré élection euh, tension politique yi am ci mbirum euh, bu ñu tolloo ci période pré mu ne nag Alioune Afrique plaide la pacification des relations entre pouvoir et opposition ngir nak ñu mëna a doxal Sénégal il faut ñu joxante loxo. Mm-hmm. acca ñu wéyal xool yi euh, en relief. en relief ñëwaat na ci Tambacounda Bougane Gueye face au procureur mu maître El Diouf dénonce fermement cette arrestation Waye tamit inondation à Bakel Matam et Kidira mu le Congad réagit face à la situation et lance un appel au secours Waye tam ki nga xamante mom moy Sori Kaba mi nga xamne nak mom mo fi nekkone directeur des Sénégalais de l'extérieur m'ont nak dal dinay wax ci irrégularité ñu constaté mhm. ci liste yi nga xamante ni la am ci Gambie mu ngay interpellé ñi nga xamne moy les services du ministère de l'intérieur ngir ñu daal di gaaw gàgganti euh, mel législative 2024 déclic de Mam Gor jazaka en ordre de bataille pour faire triompher jamm ak njëriñ de Amadou Ba mhm. Mhm. Euh, wëyal ba tey euh, xool yi euh, Tribune yéenekaay Tribune yéenekaay xëy fësal ci xëtam bu njëkk nataalu Bougane Gueye dani ak na ko li nga xam ne noonu la ko gendarme yi daal di malmené ba dugal ko ci seen oto mun a nag excès de pouvoir Bougane victime de son engagement pour Bakel la population de Bakel exige sa libération Bougane Gueye daal di nag la libre circulation est un droit constitutionnel waaye mhm. tamit les faits qui dénoncent la version de la gendarmerie Anta Babacar Ngom daal di il est incapable que ce régime il est inacceptable que ce euh. régime euh, repère euh, les erreurs du passé, répète les erreurs du passé. Nous ne otage politique. nañu ko daal di bàyyi sàmm sa kàddu ñoom itam si ab communiquer ñi ngay dénoncer mm. li nga xam ne moom mooy règlement de compte politique daal di exiger li nga xamante ne moom mooy libération Bougane Gueye Dany naka noonu itam Amnesty International ñoom itam ñi ngay exiger libération kii di Bougane mm-hmm. wax na itam ci Birahim Seck mi nga xam ne nee na Sonko nag dafay daal di euh, laver li nga xam ne à grand au Jean Michel Sène sur le scandale de Lazer Birahim Seck mu ne scandale bi nag consommé nañ ko depuis qu'il a accepté à renégocier Abdoul Mbaye mi fi nekkoon njiitu gouvernement bi moom itam daal di ne pauvre Sénégal qui continue de sabe s'affaisser mm-hmm. loole la daal di fësal moom journal bi direct news la ñuy dem yi ndaak moom itam dellu siwaat na ci Abdoulaye Sylla mi nga xam ne dafa daal di nag taal ay micro fi mu toll nii fa fas yéene naka daal di dénoncé li nga xamante ne mooy mode bi am ci Sénégal ndax nag ginnaaw bi ma doon amal ab jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ni ki démb Abdoulaye Sylla daal dinay dal ci kaw régime bi fi nekk waaye naka noonu itam régime bi fi bàyyeekoo mhm. waaye tamit eh, li wax na ci garde à vue bi explication yi nga xam ne avocat bi di maître El la Diouf joxe na ko ci mbirum Bougane Gueye Dany mhm. Acha, ñu wëyal euh, ba tey euh, xooli euh, point actuel. Point actuel, arrestation musclée de Bougan à Bakel d'hier et d'aujourd'hui, même scène. il sera déféré aujourd'hui au parquet de Tamba. tamit Tamin Elas Diouf, son avocat, son dossier sera certainement passé classé sans suite. Seydi Gassama Mom, Nous demandons la mise en liberté de Bougan Dani. Bougan appelle à la résistance pour le Sénégal. Je suis prêt à tout sacrifier. Mhm. acca ñu wëyal ba tey euh, xooli libération libération yéene moom itam nag daal di ñëw nag fësal ci xëtam bu njëkk Cheikh ñaam yi nga xam ne moom nag moom moo daal di faat ndaw soose nga xamante si euh, faat nañ ko semaine bi ñu génn foofee ca Ngor ca biir appartement wam moom nag daal dinay def ay aveu di xamle la waral euh, mu faat ki ni mel maanaam bu ñu ko mënee waxee noonu rek mobile du crime la daal di joxe moom nag nee na la tax mu fat ko bokku na ci ab copar gumu ko joxone ngir sekk ak mom ginaaw bi ñu nee nag ndaw si dafa don jaay bopam waye nak 10000 francs yoyam mu ko joxone ba nopi nak mom daldi wut euh, nangu li nga xamantene moy seen euh, euh, am lolo waral mu daldi di koy fat mm-hmm. acha ñu dem xoli bés bi le jour bés bi le jour ñew na ci liberté li nga xamantene mom moy sinistré yi mu ne gan Gueye arrêté à Bakel liberté sinistré mu ne mhm. le leader de Gëm sa bopp déféré au parquet de Tamba ce lundi les brutalités contre Bougane Thierno Bocoum et Anta Babacar dénoncé mu ne ki nga xamante ne mooy gendarmerie nag mu ngay avancé mbirum sécurité moo waral mu def li ni mel te Bougane dafa daal di bañ lépp lu mu ko wax looloo waral nag ñu daal di koy brutaliser Seydi Gassama moom nee na nañu bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Bougane gay Dany te sax bàyyi euh, opposant yi ñu mën di def li ñu war a def normalement meeting ba amoon fële ca Dakar Arena maanaam ki nga xamante ne moom mooy Euh, Bougane euh, Ousmane Sonko Daldi di wax ci li nga xamantene mom euh, le jour tout ko li nga xamantene mom moy giga test Sonko annonce en moins au moins 500 millions collectés mune Bougane dal di que celui qui fait le type tank remplisse Dakar Arena lolé la daldi di wax melni kuy lancé Bougane Gueye tane li nga xamantene défi mm. inondation nord nak Thierno Madani di nay appelé nak à une solidarité nationale mon Khalif Bile ñu xooli beneen quotidien aca ñu dem xooli l'info l'info yéenekaay moom itam nee na Bougane daal dinay dénoncer li nga xam ne mooy di dictature buy yoot nag di utal ci sénégalais yi euh, wax na itam ci ki nga xamante ne moom mooy biraahim Seck ak joxoñ nga mu joxoñ baaraamu tuuma usman Sonko mi doon jéem a setal directeur u ASER bi le waaye tamit naka noonu Abdoul mbay inondation am wax na ci Dande Mayo daal di nay brandir une plainte contre l'État daal di report demander li nga xamante ne moom mooy report des élections waaye tamit wax na ci li nga xamante ne moom mooy mbirum arrestation Bougane mu ne gendarmerie nag dafa daal di wax ne dafa daal di bañ lépp lu luñ ko mhm. wax looloo waral mu def ñu daal di koy yóbbu. Mhm. Aja ñu wéyal xool yi source a source a dellu siwaat na ci li nga xamante ne moom mooy les dernières minutes d'une chasse arrestation Bougane Gueye dani bi nag la daal di ñëw mu mel ne nag dañ ko doon otal boobaak léegi waaye nag mujjee nañ ko jàpp ne ko raat ci kaaf gi donc wax na mhm. itam ci mbirum Sonko ak Pastef bi nga xam ne nag dañoo daal di violer article 61 du code électoral en faisant un show politique sur fond de pré-campagne bugan arrêté est-ce que ce pays est sérieux bu mhm. journal bi moo samp boobu laaj de ci Abdoulaye Silla borom coalition and Sénégal qui na ci législative yi waaye deuxième tour présidentiel le quotidien le quotidien euh, mobiliser mobilisation de ressources le quotidien nous avons collecte ECOP ne nag Sonko ma ngay collecté waaye Bougane moom ñu ngi koy daal di teg ay daan foofee ca euh, Bakel wala mm. boog ca Tambacounda leader de Pastef euh, mu ne le leader de Pastef fait sa levée de fonds à Dakar Arena Bougane arrêté à Bakel pour refus d'obtempérer mm. ca ñu dem xooli beneen journal ñu dem xooli réew mi réew mi quotidien ba léegi ci mbirum giga meeting bi lee la daal di ñëwaat mu ne Sonko tire encore sur l'opposition euh, grand oral Meïssa Abdou Meïssa Babou jang ñoo ci nag li nga xamante ne mooy économie sénégalaise bi nga xam ne nekk nag en euh, récession noonu la ko daal di duppee ñu xooli beneen journal ndax. ñu dem xooli euh, yor yor. yor yor yéene kaay mu ne nag li nga xamante ne moom mooy euh, grande déferlante patriotique à Dakar Arena en route vers une majorité parlementaire écrasante noonu la ko yor yor waxee mu mel ne nag couleur yaa ngay annoncé wu ngir ki nga xamante ne moom moo. nekk ci nguur gi fi mu toll nii di Pastef daal di nag am majorité bu mag mag foofee ca. assemblée nationale waaye nag wax na ci li nga xamante ne moom mooy mbirum Bakel ak débordement du fleuve ak président Diomaye ma nga xam ne demoon na nag daal di wallu ji ñi nga xamante ne mooy les sinistrés ñu xooli beneen journal ñu dem xooli soleil le soleil dellu siwaat na si dund gu métti gi nga xam ne waa Bakel ñu ngi koy daal di dund mu ne la soleil a fait immersion à Yare Yafera un des villages les plus touchés, personnes impactées, euh, plus de 55 000 personnes impactées entre les départements de Bakel, Matamakpado, Pador Bassirou, Diomaye au chevet des sinistrés. Nous pensons à à vous et nous agissons pour apporter le confort nécessaire Tierno Madani moom ma ngay daal solidarité nationale ngir mën a Ambiria, mbir journal bi wax na ci li nga xamante ne moom na ki nga xamante ne moom mooy Anta Sow nekk ab ak trois cancers Mon nak la xamle la triple bataille d'une stoïque Noné le ko daal aja ñu wéyal ba tey dem xool yi vingt heures yéen kaay. 24 heures yéen kaay dinay dellu siwaat ci li nga xamante ne moom mooy entrée payante bi nga xam ne am na foofee ca Dakar Arena mu ne nag mbir ya nag lu bees tàq la ci biir lu bees li du nuveau dans la dans la nouveauté noonu nag la ko daal di tuddee lu bees daal di ñëw ci biir lu bees. mu ne la ko journal bi daal di duppee wax na itam ci li nga xamante ne moom mooy. mbirum arrestation Bougane Gueye Dany ca Bakel ak la nga xamante ne moom la wax ca enquêteurs ya waaye nag ginnaaw garde à vue ba ñu ko tegoon niki samedi moom nag tey jii la war a jàkkaarloo ak ki nga xamante ne mooy procureur de la république waaye nag wax na ci li nga xamante ne moom mooy cinquante cinq mille six cent sinistrés ak mille deux hectares inondés foofee ca Bakel Mm-hmm. ñu dem xool le peuple. mu ne nag attaques yi nga xam ne ñu ngi koy am contre l'ex président Macky Sall mu ne c'est mesquin. Mm-hmm. loolee la daal di wax mu ne attaque yooyu nag dafay daal di non seulement dafay tilimal li nga xamante ne mooy image euh, nit ku baax waaye tamit euh, dignité bi nga xam ne moom la président de la république boo xam ne jox na lépp lu mu amoon Sénégal ak mm-hmm. lépp lu mu mënoon loolee lay daal di euh, bafoué. accañu dem xoolee li quotidien li quotidien yéene kaay moom itam dellu si waat na ci bugan ak li nga xamantene mom moy cauchemar eh, du régime manam bugan mom dafa dal di sonal ñi nga xamantene ño nek ci nguur gi eh, journal bi japp na sax ne buñu ñu sax duñu nelaw ndax dañuy gënt bugan ak yi ni mel waaye tam delu ci wat na crue du fleuve bi nga xamantene def na 774 ménages yu impacté wu ak 1002 hectares yo xam ay champs yu inondé la dundu ngay dem de chaque jour ma wax la ko ndax dund gaa ngay dem mm, ay ñun baa dugg ci ak xiif ak xiif gu méttee ngi ñuy yoot waaye tam journal bi ñëw na ndax ci Ziga meeting boobu nga xam ne amoon na foofee ca Dakar Arena mu ne Ousmane Sonko nostalgique et manipulateur loolee la journal bi wax mm, dinañ si daal di ñëw acca dañ mm. koy daal di nderkàppale ak euh, li nga xam ne moo di wàllum tàggat yaram record lañ koy record yéene kaay tàggat yaram mu ne CAN Beach Soccer 2024 surclassé par la Mauritanie les mhm. Lions doivent se ressaisir ce lundi face au Malawi ñoom nag lañu la leen war fi mu ne mooy defar waat ndax ñoom daaw ñoo yóbbu woon yëf yi surtout c'est euh, une huitième coupe d'Afrique des nations la ñu j'espère que dinañ ko gagner quoi. ah c'est yàlla baax baxna tournoi UEMOA bu U17 yi mom calendrier bi nag daal dinañ ko réaménager. Mhm. Sénégal Mali Libéria ak Libéria Gambie ce lundi lay dal di am. Mhm. waxna itam ci li nga xamante mom moy football Angleterre Liverpool Chelsea mune Angleterre nak mo dal di euh, daan li nga xamante Liverpool Liverpool moo daan ki nga xamante ne mooy Chelsea deux buts à un Jackson nag moom dafa daal di dugal ab cinquième but am mm-hmm. Iliman euh, buteur Pape Matar passeur mu mel ne Lyon ya nag foofu ca club yi ñu ngay passante mm-hmm. ngay passante Iliman Everton Pape mm-hmm. Matar Tottenham noonu la kaaba demee euh, dem xool yi euh, Trobin Sport daal di ko fay jeexalee. Sport la ñu daal di ndar keppee li ni mel moom itam wax na ci tournoi UEFA U17 bi mu ne Guinée Gambie ak Guinée Guinée. Guinée Bissau mhm. ak Sierra Leone ñoom nag dañ leen a daal di disqualifié mhm. lii la journal bi wax waaye tamit kan bi ci su ko nee na Sénégal kenn xàmmeewu ko puudaru na de mhm. en gis nañ bi nga xam ne daal dinañ koy def moom Ngalla Sylla ak kii ay nee na équipe bi daa puudaru fi ñu toll nii euh, doy na waar Alseni il faut que ngeen daal di ressaisir woon euh, Afrique lu tax ñu naan euh, Sénégal champion bi ci ci tous les domaines en tout cas ay temps dëkk Afrique ñëpp a leen fi ñu toll nii doy na waar ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci yooyu les lecture euh,